ndeysaan bi Abel a ngi noonu di ñëw ànd ak délégation bi xool ko muy siiñ ne naa leen dafa mën a sourire ànd ak doom ndeem Marco Reus nafa you ten naro mira wala le kapkare na le goya bunde fadida na goya na goya na हाँ इंडिया के ये दिन हाँ इन्होंने की गर्मी लगा बिना बिलकते निकासी हो ñoom Malick ñoom Blaise arbitre yi sax dañ koy feccal ndeysaan waaye nee na ko duuma sax lañ doon dégg da ko borom tur bi yegg si na waaw. de yeah. digo digo ya wanu kin bota yok ke jegona waaw waaw ndeysaan comme noonu allo

ngeenooɓe ɓe hannde ɓertiiɗo leɗɗi abacar sek walla abel yo koydamanga antuta donc hannde ngeenooɓe ɓe jango ñiw gon abacar sek remote ko mba a jalla jalle no mosu no saata fee la commune fee même au delà de la commune fof on yettanaje babacar sek hannde koy a garaga and you want it there and gold and there was a protein. Some road and hell one everything. The Geno, Alaina Hakirom Sego, and Geno Sudani Rum Dantom. Oya ando ne program fo kuna may do na den o wahi no je donc pour falle fe ko nyogo rek zamro donc kendo kendo ne tani bu wulay tel baba karta ko de banongo aref no sate ve jalla mais asoog layel nak o xeɗanen parce que yooɓee kat mete fodna a soog laye ñaan trop donc saate fe nu ngeɗanine pas accompagné ndi calel ke itam a moƴo jofa paam ndi yinoyino maamo ndaaw teen donc ten rek buɗumo lay teen nu mbasanama ka paax o cooɗa buba o ñoorona Thank you. voilà Malik Fallay be Moussa donc euh, Zambro TV wahade kiraka be Boubacar Adi Zanido voilà waaw Zambro ngay jël enveloppe ba ndeysaan Malick a ngay tijji attention lii jërë jërëjëf Zambro jël na enveloppe ba ndeysaan voilà Boubacar Seck abisani de Zambro TV deux cent mille francs heɗan mete hatnaka huppuna nom to mana borom doole xamul nag teranga fe a maya trop a maya trop Merci beaucoup, merci beaucoup. Tchalel Genjoba Pam. Lingatamana Boubakar, délégation V. Kamil Sar, Denaro Kida. Kamil Sar, Denaro Sowari. Acha gaay délégation ko ni legi dolu. Ne Kamil Sar wala nga ne ko Mika. di ko woyé boo nga xamante ne ASC Étincelle lay ndamoo lu mu gën lu mu am xale ku mu gënal waaw kami na sax délégation ñoom grand Moussa Penda ñoo ko représenté ñoom grand Doudou Den ñoom grand Paul Sarr Dagana Mamadou Sarr waaw waaw waa ASC DSL Diogo Baol di leen daanaan di leen di félicité au passage si trophée bu ñu andi waa Palmarin keroog jëlee ko fee ca Mbar Fatou Ndao daje fa benn tournoi de 1 million franc CFA gandi ba waa Basse ba ndeysaan ngeen xam ne waa ndeysaan ay jàmbaar lañ ay bànkat lañ merci Mbaye merci Ramat voilà quelqu'un de vos délégations veuillez Camille Sarr India Moussa Penda Paul X Jussi ba Diobari fira wede yooni nawsi i mbaasa den de partage fa mbooloo mi ak cooda den ke de visite na asubillahi mina seytane rajim mbooloo ne inoye nginwa nuun kino kiñikonu sima ngolum ino no président délégation fe Kamil Sarr e feere bomba ndemo mba a wolwa in aussi a ɗolida in ɗen aussi bon jolla men fof leya nuun ke anne ten areɗo guttal tv nak damro a refa refu ndema ndogun dutun oxa anne a jaɓa jaɓ mbamrum donc kute fiya damro xo ten na xay no feet fo kalta um donc a mofanga bo a neɗtin teranga feke te jaɓin bon nda e, kuwa go xena rek a jeg lakas ka wagona ina weke na neke aussi winum i ndefum xeƴa sax xanu kiina le waaw a weke namo buga représenter ida kamil nda nak keke cadre sport o ka jega jeg ke fogatna in kamil fogaam ne a jega wa and naye ye i leyana den ASC etensel a fogata in fo kamil bo e e tege refat fo fog ten taxu bo i njang te jang initiative feke a lulida pour kokotani din teranga fe anderum pusamro yatam ke andona tenu sentu oxa kenam keke fiyona meke moof ba ref télévision juwala o ref premier acteur télévision kam palmarin roga wagan yasam te fi na barke maga fo madina a refanga ka an nexana malo i yasam roga nefa ɓaan voilà Zamro waxa tek teranga fe o coɗelo den Dávila bàyyi noonu ndeysaan Voilà, délégation we Kamil Sarr a ɓisiida cent mille francs andon ten i naak i naak la sambroxisanga o feet ndaa roog a xotkin no siila donc mboxani yo Kamil Sarr sawan bawan yook na a délégation madame le maire a ngi noonu moom la ñu deelee bés bi ndeysaan doomu daagu madame le maire ba yaakamtiwul borom doole la grand dame la moom tamit ndeysaan Palmarin ñoo ko fi teg ndaw Palmarin bu ko soxlaa war na mën a taxaw moo tax bañ ñu waxee bañu benn yoon liggéey liggéey bu rafet ndeysaan fii ci biir Palmarin di jàppale jeune yi parce que maire bi moom tamit jeune la nee nañu maire xale kon nag lii gars yi

Voilà, merci. Délégation ve Madame le maire la marraine Dandagu Hege. Dior Sarr aref jigéen bu man góor. Dior Sarr ine ngeɗanam ni ke refoona o yaalo he ndamtom ten bo mairie fe no sigilankiidan tit ke no serviwa ten o yaalo he fi'an na nuun voilà kon nak Dior Sarr boy cooɗin parole fe te teb teen o ñuur a boot teranga fe Merci, merci. Kadang ko ya labi men jam. Ang hono kay get na men. Ang som iwe ting na ni mi gon kung pa si magon. So jo ka no na jam. Kayet ka lay. Nanda ko gamro. Sam ho ti di me git mama pa. Onde ko yaru. Onde ko peno o ha ano na ya pele peno kom ti jom. Me git mama pa. Ye ha jo na kop dar mes amis, on a même Madame la maire, Mibou, on est marraine fait. Il dit mon pied n'a pas, il y a un toit là, il est maïamen. Cadre que n'a pas joué là, machallah, on a fait pabat. On dit la peine, on a victime la casse nous donne qu'il mort. N'a pas fait qu'on est on a fait d'un royal, la vie d'un jam. Que c'est un toit là, on a royal, ayo banana motel. Carrière nous pour on a. Mu buhona rek ko fatmana fa jampalalo fa boy me gin mam กินมาจุ้ยแล้วก็กินมาไม่ใช่เลเมมามสิยามรู้จริงยามไม่โมโหยามยังเงี้ยน้องอาเมย์ที่ขันเนี่ยสารมุดโอซากุยุ่งตะหุ่นผู้เจ้ามันอะจุ้ยล้วันเนี่ยโอซากุยุ่งตะหุ่นยามน่าจะนั่นจุ้ยเร็กโมซิรามโขเบคนนักเงี้ยน้องอาเมย์ที่ขันเนี่ยบัวว่าอยู่นี่จางอาเฟย์จะมีสีดูมั้ยโอซากุยุ่งตะหุ่นเนี่ยกินมาหมดกินมาหน้าพักตัวให้ด้านนั้นก็จะเซ็นที่วานจุ้ยและวเป็นด้านโรยาละมีอนหนึเงเป็นด้านโรยาละนะคะนี่เชยตานี่ยินมาเอจิมินิสิพาลเวนเดฟนันนาคอมินเฟมฟ์ yam nata yahuke kay laynumo lek vendredi so hande mola ya wine to giyam soutien ke den machallah mi contana paaxa paaxa paaxtoji haw ɗawe maak to an me a xeexɗami ho hefte nda wax deg moƴamo gidmo yaagoxe yaam andam me no ku refma rek wiine ana soɓaam teen gidma délégation feke ando naye ten yontiɗum ten fop yaa ligoranda nu tuwa ngajanga congke den gidma nun nuno fop koy gidim duwana fop koy wetimo den to contana จำว่าแค่พี่ๆดูมาใหม่ๆยังมาไม่แค่เดียวเลยดาวาจะหุบเลยที่จะนิจอมเนื้อกสร้างเส้นการที่มีโคเฮปันเฮปันอิมาจินอิมาจินักกีฬาที่เคยมีเงินเนี่ยต้องกานำมาทำแน่ที่ส250 000 francs. yasam mede hatna kupuna nong to mana o yi alo fi anum kesen tu wa na o sawan bawa edan o yi alo e anom sa non menu bamit na bajam merci beaucoup